alors euh, seetlu ngeen ko fan yi tàngoor bi dafa mel ni dafa commencé waat ñu ngi ci mois de mars waaye fan yi mujj tàng na ba ventilo yi génnaat ak clim yi ñu dem ci euh, température yi tey jile lan la xëyee ci euh, suba teel bi ci ndakaaru ak li ko wër bu ngeen xoolee Dakar daanaka 20 degré lay am bi gën a ndaw nag bu ngeen di xool daanaka ci suba si Kaffrine on a 18 degré ci fajar teel bi Ziguinchor également 18 degré Matam 19 Sédhiou 19 après nag ci la. lu mel ni Dakar door ñëw tey jile 20 degré ak Saint-Louis 21 euh, degré booy xool euh, Thiès 22 degré. Tambacounda 22 bi gën a mag euh, Kédougou la avec 24 euh, degré loolee lépp ci fajar bi la maanaam laata naaj bi di génn di saf-sàpp naaj bi bu génnee nag température yi dafay yéeg bu baax a baax mu naaj bi saf-sàpp mu tàng bu ngeen di xool fi nga xam ne dafa amoon yëpp moins de 20 degrés dans l'après-midi plus de 40 degrés dans le sud du pays Ziguinchor 42 euh, Sédhiou 41 Kolda 41 degrés Kédougou également 41 degrés booy xool euh, température bi gën a mag nag mi ngi am ci digg réew mi lu ci mel ni Kaffrine avec 43 degrés gis ngeen ni mu tàngee Tambacounda 42 Louga 42 euh, Matam 42 degrés Saint-Louis 39 euh, Dakar 31 moom moo ci tane maanaam température yi nga xamante ni en dessous de 40 degrés la dakaar la Thiès ak Saint-Louis rawatina diwaan yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci pegg géej bi bu ñu waxee ci géej gi ci boppam nag moom daanaka dina fees bu 10 heures 33 jotee bu 23 heures 0 3 euh, jotee dina feesaat euh, tey jile ci euh, fajar gi 4 heures 43 géej gi daloon na 16 heures 50 un ñuy julli tàkkusaan rek géej gi dina dalaat après ñu jàll ci naaj bi ñu doon wax sànq nag ak ni muy safee sàpp naaj bi daanaka jóg na 7 heures 22 ci la naaj bi daal di fenk il y a bu minutes bu 18 heures bi 19 heures 18 jotee mu daal di sow mu yemoo ak timis mu ngoog c'était les prévisions du jour leen fàtte di naan ndox saa su nekk et puis ngeen di couvrir itam di diwoo xem solaire baax na ci itam balaa euh, ngeen di am ay euh, kon naaj bi di leen xaw a sonal tuuti ci seen yaram léegi léegi dañuy jàll ci euh, un jour une actu ñu àndi ceeg Marcel Farba Maoun